billahi ku tey di am li nga bëgg manta an na naa la maata man na manta an na naa la maata man na ku tey am li nga bëgg yàlla mi dara warul mu bind ñu aha jib bala yàlla di bind yaa ko ne def ma nit bu la defoon melentaan loo ci mën man su ma defoon unku lu ma ci ah su defoon Sidi Ahmed Mbóot lu mu ci mën imaam Youssou Guèye bu ko defoon janax lu ci mën Modou Ndaw mii bu ko defoon yeew lu ci mën ah déet niñ waxante dëgg rek ah su jëloon Karimatu Diak def ko yoo lu ci mën ah bool jub ñu pomp la xam nga nit ñi imam dañ dul seetlu ah bu jëloon Mansour jàmmale def ko sonorisation ah def ko microphone wala mu def ko leneen ah wala déet xam nga nit ñi dañ dul seetlu waaye yàlla mi am coobare am kattan am sañ-sañ mënoon la bind def lu def ko lu la neex mu teggi yooyu yëpp teggi jamaadaat yi teggi yëpp ne nit laa lay def te moo waxal boppam ni wala xad karam naa bani aadama maa jox teraanga doomu aadama maa ko teral wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri xoolal nim ñu tàggee wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasiirin min man xalaqnaa tafdiila loolu ku ko mën a fay yàlla mu def ñu nit mënoon nañu boole ca maam aadama tëraay bi yàgg lool xoolal haabil ak xaabil bu ñu boole woon ca maam aadama tey ñu ngi toog di xaar ci biir suuf mu teggi maam aadama teggi nuux teggi yunus teggi ñëpp ne danaa leen boole ci xayrul xalqi danaa bàyyi ba rasulullahi ñëw ma boole leen ci xeetam lool ku ko mën a fay yàlla ah bàyyi ba yonent bi jàll ñëpp jàll mu tànn ay awliya om Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Ibnu al Arabi al Haatimi ah Imam Chazali Cheikh Abdul Xaadir ba ci Cheikh Sidi Ahmada Tidiane mu ne ci ci tariqaam laa lay boole mënoon na la boole foofa fàtte nañ la bu yàgg mu ne dinaa bàyyi ku ñuy wax Cheikh Umar ñëw ku ñuy wax Alaaji Malik ñëw ba ci ay doomam ak i sëtam nga door a feeñ gëm ku tànnal sa bopp loolu am na waaw yàlla mi la tànnal loolu te santoo ko ko billahi boo teeyee loo bëgg mu teg ko ci solo yàkkamti rek a fi ne waaye ku tey rek loo bëgg yàlla teg ko ci sa loxo ñun nag liñ bëgg mënul nekk juddu léegi toog léegi raam léegi dox léegi daw léegi curpi léegi dee léegi kenn mënu ci dara boo gisee xar ak béy buy judd rek curpi daw del si waat dem del for ci banti ngooñ mi namp ci weenu yaayam dafa amul ku ko teete moo tax am na ndey ju ko uuf amu ko amul bàyyi bu ko jënd ripaas amu ko est que xaram na bàyyi bu ko jënd li ripaas moo tax yàlla ne ko gaawal dox say itte boo fi toog leen nga dee jógal namp ci sa weenu yaay moo tax buy juddu rek dox la yàlla teral nag daf la naan toogal xam sama teraanga loolu lay firi maa la teral toogal nga xam sama teraanga sama teraanga mooy dañ lay toppatoo par la force wala ma duma leen sa yaay ñëw jël la gëmeewu la yàlla roof ci xolam mu bëgg la gëmeewu la te bu roofoon ci xolam mbañeel kat dalay kaata nga dee rek wala mu ëddi fa la léegi nga dee waaye boo doon étouffé sax mu jël gémmiñam dëpp ci sa bakkan muuti ñenn xit ji ndax bëgg nga sowe wala déet parce que nit yàllaa ko teral fokk mu mos ci teraangay yàlla ji bu bëggee nag teraanga ja sax day nekk ci li ko yàlla sant bu newul ci li ko yàlla sant nag teraanga ja ah dana am bés teraanga ja dànk maa la day tànn waxaade yi naaw na ji day ni kon nañ teey àddina jeexagut doonte jeex na waaye des na te laa laa jab du waxoon mu ne nit ñi da ñëw ci Seydi Hadji Malick kenn ko ne di jooy ndax jamono bu métti mu ne Maodo ne leen kañ la jamono ma sa neex bi ñuy rey yonent yi mu ne Maodo ne leen ku ci mën a yëkkati sa loxo ne déwén dina ko fi fekk man Malick ma yëkkati sama loxo waa ci yàlla ne di nga am loo dundee ba déwén mu ne kenn yëkkatiwul mu ne waaw kon ñemewu leen a yëkkati xamul leen ndax déwén na leen fi fekk bàyyi leen yàlla ak seen bopp rek kon nañ tey yàkkam ci bi matu lu waaye am na ko doy loo lu am na ko doy lu keneen am yéene ko ko te nekk ci li nga war a nekk boo dee ouvrier teel a la xëy liggéeyi boo dee menuisier teel a la xëy liggéeyi boo dee bureaucrate teel a la xëy liggéeyi boo dee élève teel a teel a la xëy jàngi bul xeeb dara wax naa leen ko mu ngi fii ci mbooloo mi bu dee ñëw na tey naanaa lay jaay toolu naanaa la am di bay ci la tabax kër billaay mu ngi fii ci mbooloo mi fii lay xadra saa su ne moo may indil naana daaw 3 millions la yëkkati jox ma ne ma sama yaay laa bëgg a yóbbu mag maa ko versel xaalis bi wallahi maa ko versé xaalis bi xam nañ ko ñii xale yëpp xam nañ ko mu ngi fii te ay toolu naanaa rek la yo mooy nit loo xeebut mu jëriñ la te boo demoon fii ci sans fii yi fa la jënd kër tabax benn waay xëy rek comme ni mu def terrain bi rek ñëw na ko kër gi maa ko moom dem police dugg génn waaye xam nga man ku sow diju bàyyi jàmbur ba am ca tubéy miraasum bàyyi jàmbur ba am ca tubéy te miraasu bàyyi waxe noppi wala déet mu ñëw wax ma ko ma ne sayit kaay nañ xaatim nañ suul nañ def lépp ba pare ma dem police ma ne ko du am ba nga koy jënd fekkeewu ko parce que léegi terrain bi placé na fi nga ko tabax baax na benn waaye ñëw xëw ñëw rek ne ko maa ko moom benn neexalaate neexalaate neexalaate ba ñëw huissier ñëw taxaw ma ne ko doo ko fi génne te bokkuñu dara dara bokkuñu ko mais fii lay xadara wallahi laaj leen ko ma ne ko doo ko fi génnee maak yow ba ca armeel ya parce que néew nga doole ma ne ko niñ dem buñ la convoqué police maak yow ñu wuy ji ma woo commissaire ne ko bàyyi leen jàmbur kii deful dara kër gi moo ko moom kayit yaa ngi valable moom ci loxo nit falsifié fële ay kayit indi ma ne ko bu lii man ma jàll àllaaxira waral lu ma ko ci la am njàng na yoo xam ne dama koy def ba noppi du ma leen ko wax sax yàlla xam na ko parce que tamit nit ki bu ne bu ne wala yow yow laa yaakaar ci waxe war na laa jaral dara mhm. boo gisee may wax yi bu kenn xeeb dara bi ma ko laajee loo loo doo soppi liggéey mu ne ma xalaatu ma ko naanaa ji kañ maa moom bi àlla xel ah waaw ah ca la terangam nekk ca xeebu ko loo xeebul mu jëriñ waaye di xeeb métier di xeeb métier di xeeb métier ba kañ te ñëpp mënuñu liggéey ci bureau waaw oustaz Souleymane Samb mu ngi nii di yàlla noonu sax day fekkee mook waaw kam moog sëñ si di jenn ñoo ànd bismillah toogal rek sax su ko defee kon daal ci gàttal li ma bëgg rek man daal fii aleykum salaam bismillah sëñ Souleymane yegg si leen yegg si leen bàyyi ñi ñi lépp ñàkk mag ñi bu njëkk faatiha rek buñ la ko jàngale sa aajo faj léegi da ngay ñëw ci shérif muy tari di tari di tari ba yow mi ñaan lu sax bu soobee yàlla yaay njëkk a waxuma la ak moom miy tari te bu paree dara yàlla day mel new fi te mag ñi bu njëkk seen faate yu gaaw yooyu ëpp bu dee mel ni sëñ Babacar si incha allah du la sax ñaanal incha allah wax naa ko fi àjjuma bii passé Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bàmmeel bu mu mës a mën na la wax baram bàmmeel bi texe na wala texewul day wax ak moom muy dégg. ah ñun nag lu ne da ko jàng doo gënt sax lu ne di ko wér de doo mos a gënt sax lu baax booy gënt dañ lay dàq ngay daw nga xam ne mbir mi soppeeku na te laa yuxayiru llahu ma bi qawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim kon nag imam nga baal ma damay bañ a monopoliser yëpp man daal li ma bëgg mooy ñëpp nañ dellu ci métier wut métier bañ a yaacaaral